asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan ngeen àndandoo tey seen site Dakar Net di dalal ndaanaan koo xam ne kenn door ko présenté ci wàllu musique muy Baka Niang mën a way loolu xale yi bëgg ko mag ñi sopp ko te moom nañu dalal tey te dañoo gis ci benn son son boo xam ne dafa garaaw mu jël trois langues boole ci benn son te yaakaar naa ne loolu noonu yobbul léegi dañu bàyyi jox ko kàddu yi mu après ñu dikk ak moom ci waxtaan. Baka Niang ñu ngi lay nuyu. waaw mais frérot ma lay siyaar bu baax di la fay ci nuyo bi euh, di nuyu waa Sénégal gépp euh, di sant yàlla bu baax a baax julli ci Yonent bi sant samay ñaari waajur euh, di nuyu sama fans yëpp waaye mën a nekk di nuyu waa Pikine ginnaaw raay bu baax di nuy waa HLM Grand Yoff di nuyu waa Damel di nuyu fépp foo xam ne daal kuy bëggee Baka Niang mi ngi fa parce que nag. lii laa mën a def ci ñoom loo xam ni sama xol dina daal di sedd parce que xam naa ni loxoog loxo dama koy bëgg lu may imaginer la des fois mais xam naa du ñëpp ngay mën jox loxo say fans mais maa ngi leen di biral sama nuyoo di leen jox sama loxo bu baax naa leen jaajëf jëf maa leen di xaar mais exactement ñu bëgg a xam kan may Baka Niang waaw Baka Niang Baka Niang benn benn ndongo daara la rek waaw doomu aadama boo xam ni suñu boroom moo ko def mu juddoo ci askanu ngéwël Euh, yaroo Pikine ginnaaw raay juddoo fa tamit sunu borom def muy artiste di way artiste boo xam ni sunu borom mën loo na ko ay perki mu boole way ak tëgg fecc mënoon naa ko ma nekkee xale mais damaa dem ba sentir ni euh, eesuma ci filuma ci comfortable. Ah, da nga doon fecc daal. maanaam daaw moon fecc mais mënoon naa fecc te ba léegi sax mën naa fecc waaw mais ci woy laa gën a euh, gën a gën a aise daal ci laa bàyyee fecc rek laa bàyyi mu wàcc mais li ci des yëpp dama ko téye def ko li nga xam ni pour mu 100 pour cent ci man. Hmm. Ah, ñu gis sa carrière solo yaakaar naa ne depuis 2012 nga tàmbalee suma juróom. waaw sama carrière solo waaw ay 2012 yooyu. 2012 waaw waaw 2012. 2012 waaw 2012. ñu gisoon nga bokkoon ci benn groupe gox bi système. léegi yow est ce nekkul da dem ba ci biir nga gis ni gox bu système dafa xaaw a kii nga ne xaaw a jël sama yoonu bopp maanaam pour mën a demal sama bopp. non euh, li tax ma def loolu du gox bi système dafa xaw a kii parce que gox bi yaakaar naa ni dafa nekk benn groupe boo xam ni nit ñi li leen xamee mooy def loo xam ni dafa am qualité. def loo xam ni dafa high high quality la high quality lu lu am high quality thing maanaam moom mooy loo xam ni da nga jékki génnee ci banlier bi rek jox waa Sénégal lu neex te avant loolu fekk na suñu borom def ngeen am ci li ngeen téye ba dem tournée international di dem ci ay ay festival yu am solo di wër ci àdduna bi kon yaakaar naa euh, groupe boobu mënu woon def ñeen ñi amuñu woon temps nag pour toog Sénégal parce que fi ñu dëgmal loolu moom mu jël suñu temps ba nanguñu presque boo dee seet ci ci ci ci ci ci ci public Sénégal bi mais loolu taxul ma dem fenn li tax ma dem mooy olof Njaay dani lu rembe tuuru man defal am lu ne ci man loo xam ne nekkul rab rek la mën a ci rab rek la mën a fit waaw ci rab pour rab la li ma nekk nekkul ci musique rab kase la man dama fees tell ak aar fees tell ak musique te lu rembe nag tuuru te yaakaar naa ni wan naa ci firnde gars yi mat na 5 ans 6 ans 7 ans ñu bëri naan ñaa su woyee mbalax da nga naan mbalax la gën a mën bu woyee li nga xam ne mooy arène bi nga ni moom la gën a mën su woyee beneen musique boo xam ne tey afro nga ni moom la gën a mën su woyee beneen musique boo xam ne tey coupé décalé nga ni moom la gën a mën single bu bees bi ak jayna ba wanee na ko ci beneen côté euh, ma bokk ni nga xam ne mën naa ni bokk naa ci ñi njëkk a def Sénégal fii musique boobu waaw musique gu mi nga xam ne moom mooy nigérien son yi xam nga nigérien yi euh, ñoom tamit ñu am ci doole lool mais fii Sénégal bokk naa ci ñi ko njëkk a def te ku ku koy naatable internet bi moo fi nekk léegi ba tax nit ñi sonatuñu ku tàppe jey na ba kañ la ko bëgg a def euh, ak te doon naa ko def avant yoo xam ni enregistré woon naa ko te génne ko te yëpp mi ngi ci man kon nag euh, Baka li nekk ci moom du ci benn musique kese la koy teg man artiste boo xam ne la international la te yaakaar naa ni képp ko xam Bacagnan loolu ngay jàng ci moom loolu ngay gis ci moom te loolu nga koy nangul li may faral di wax ci single bés bi naar loo ko bañ bañ ba ko xeesaay bi ndax moo ko moom waaw Bacagnan loo ko bañ bañ ba ko mën a wayam mhm. ah, ah, ñu gisaat tamit ci gox bi système ba léegi fa la ñëw waaw ah. parce que gis nañ nga ànd ak benn son yaa ngi ndongoloo mhm. son bu neex sax son son boo xamee dafa bëse la di ko ñaanal suuf weex ci kawam léegi dañuy laaj relation boobu noonu yéen a ko dox ba Ndongo Lo ñëw participer ak ci son boobu noonu wala nga leeral ak seen bi ñu xam. waaw Ndongo dafa nekkoon sama frère avant gox bi système ñu doon daje ci ay yi mu Moustapha Mbaye euh, may dawal sama oto di dem ay jàng fu mu nekk dañuy dem seetaani ko Moustapha Mbaye yàlla suñu borom guddal fanam euh, kooku moom mooy Papa Tarba euh, boobu xale bu ndaw laa mais. bu bu bu ay buy jàngi fenn dañuy taal suñu oto ñëpp dugg ci ma fay dayante ak ay Papa Ndiaye Papa Ndiaye cu biy fecc ak ñoom yéeli groupe boobu noonu dafa dajante ak nongoloo dafa dajeek euh, ñoom maajoor yàlla na suñu borom xaare ko àjjana euh, dafa dajeek ndaanaan yoo xam ni ñooñu danoo tarbiyu aar fekk nañ ko fu ne bi ñuy ndaw ndax bëgg ay woy rek ndax bëgg euh, jàkkaarloog wéyli wéyli ma way ma yàgg dem fu ne billaahi léegi nag loolu nongo la dañ doon bokk jotaay yooyu noonu bu ma safaa mbaay di jàng ba courant coupé moom mooy yuuxu mooy yuuxu plein air def teer am na air boo xam ne la nga ko xamee wala avant avant Moustapha Mbaye di commencé moom mooy jël mu nekk loo xam ne dañoo dund loolu lépp après ci la gox bi système nag ñëw bi gox bi système ñëwee Euh, bi ma ñëwee ci moom dañ leen bakka sama rakk la te waxaguñu suñu soxla mu ne groupe bi bakka sama sama sama rakk la waaw ku ko bëgg laa bakka boo leen bëggee ñu def son ñëw leen ñu def ko lii moo indi featuring boobu noonu ñu ngi ko pikin lañ ci woy xol bi gën a sedd moo tax son boobu ku déglu son bi da nga xam ni nonga xol la ci woyee nonga yéene la ci woyee loolu moo indi suñu diggante ak nonga. Ah, ba ci gox bi système ba léegi ah, fa lañuy ñuy tegu. <laughs> parce que euh, dañoo gis ñun ñun waa showbiz bi quoi. bu euh, ci télé yi ak ci rajo yi ba ci site internet yi euh, déggatuñu gox bi système ñu lay laaj comme yaa fa nekk ñu lay laaj gox bi système ci lañ lañ nekk. waaw gox bi système nag ñu ngi si jàmm ñoom ñu ngi si jàmm quoi parce que ñoom États-Unis lañ gën a basé am na single yoo xam sax yàggul noonu ñoom bu ñu ñëwee génn ko waaw muy affaire bu nice nag. waaw ñoom ñu nekk seen yeneen bagage continuer job seen job mais man daal maa xaw maa xaw a tarxis glissé daal waaw tarxis glissé bi nag moom mooy yaatal liggéey bi rek waaw jox Sénégalais yi ñu bëgg te moom mooy lii mais gox bi ñu ngi États-Unis Pathé mi fa Papuy mi ngi fa xam nga jazz ay daawaati jéeg Miamor bi ma ko génnee maa moom ñoo ko def sax ndeysaan parce que dama am idée bu nice te moom moo ko génne man ko nag lii yaa koy defal sa bopp man du la ko defal mu daal di ñëw ñu seddoo ko di waxtaan. te musique loolu la quoi ñooy jàmm rek moo dox suñu diggante mais sama carrière solo bi may def dañ cee jàpp ñoom te aussi dañ cee ànd. parce que xam nañ lan moo ne ci man tax xam nañ ni mën naa jox yeneen doomu aadama yi bëgg leneen mën naa jox leneen lii moo indi loolu. waaw sa carrière solo bi ñu gis que ni ah, lan dañu bëgg a xam lan moo la inspiré ci sa carrière solo bi parce que dañoo gis nga am talent bi la wala tamit ah, li ah, sa gëm-gëm la boo war a comme ni nga ko waxee nga jox askan bi loo xam ne tamit ñoom ñoo ko moom. ñu bëgg nga leer nañ ci loolu sa carrière solo. waaw xam nga carrière solo dafa yàgg ci musique ak ci musicien bi parce que tey musicien boo fi dégg rek mu nekk ku mag a mag mag sax am na ci groupe bu mu nekkoon parce que am nay groupe yoo xam ne bu ñu la koy expliquer yow miy xale mel ni man danga nga naan waa groupe boobu groupe la woon naan la ay number one naan la ay nangam nangam temps yooyu mbalax sax saful woon ni ay salsa moo amoon ay merengue ci la gars yi doon way. Ah, ñaa jamono jooju Youssou Ndour nekkoon ci koo xam ni ci ci ci ci ci ci ci ci jamono jooju la commencé yoon dugg ci musique xam nga fekk fi ay ñoo xam ne suñuy maam la parce que jamono jooju moom ay tonton ñoo fi nekkoon ay demee noonu xam nga ñoom Père Mbaye Guèye Faye bu ñu koy waxtaanee des fois sa xol day sedd mais après ñoo dem ba ci biir def seen carrière solo kon carrière solo ci doomu aadama bi yàgg na ci nit ki man nag sama bos man xam li ne ci man te yéene ko jaam ñi te bëgg ak bëgg bëgg koo séddoo ak jaam ñi xam ni mën naa ko moo tax ma def ko am na ñoo xam nag def nañ carrière solo mais demuñu benn single la ñuy am te nga leen gëjee dégg am ñoo xam ni dañuy bëgg def rek waaye duñ def mukk est-ce mais nag bu bu yàlla dimbalee nga nga génn ci groupe bi nga nekkoon def sa carrière solo te heure boo génnee nit ñi nangul la ko buñ la invité ngeen séq jàmm ba ñëpp di nangu li nga xam ni moom la yàlla dogal. di kontaan ci li nga leen di jox ñu mu leen di doy sëkk nag ma koy rafetlu euh, kon loolu dama ciy santaat suñu borom euh, dafa am loo xam ne dafa am solo euh, nit bu la suñu borom defalee loo xam ni tey àdduna bi yëpp dafa bëri ay doomu aadama te ku ci nekk ak li lay daaneel te musique dafa bëri te wute doomu aadama yi bëri te wute te ku nekk ak li lay daaneel ci nit ak ku nekk façon musique bi nga bëgg kon suñu borom bu defee yow nga nga nga nga nga am loolu yow mën a développer ci loolu mën a ku nekk nga bëgg ko jox li mu bëgg su la borom mayee may googu noonu te loolu moom mooy international boo ko boolee suñu borom bu la defee nga mën ko mais da nga war a jox jaam ñooñu man bakka ci loolu la nekk te yaakaar naa ni ñi ñi ñi nekk ci musique di def international yëpp ci loolu la nekk moo tax Baka Niang ci musique la nekk musique lay def musique lay jox jaam ñi ma ko yëgee rek. suba rek mën naa génne sama ñu reggae boo xam ni danga naan kii xanaa dafa demoon Jamaica yàgg fa lool you euh, mën nga ni suba tamit bakka sound R&B bi lii xanaa américain moo ko way wala suba ma génn benn sound boo xam ni ngoyaan lay nekk. mais loolu talent la wala. mayu yàlla sunu boroom la. après talent doog a ñëw yàlla moo lay may loolu mayu yàlla sunu borom la après talent doog a ñëw parce yàlla bu la xasee ba may rek après foo jaar par force bi day ñëw waaye nit jekk na ci pour mu am talent yaru ci kër géwal wala woykat jur ko te du woy lu baax du sax jéem a way day dem defi leneen est-ce que comprends nga mais pourtant bu xëccee tuuti pourtant talent bi mën na fa ñëw mais après dogalu yàlla sunu borom ba ak may ga mooy des. dañoo gis ah, nga génne son bëgg naa la lool mu nekk son bu neex àddina Euh, neex sénégalais yi bu da ngay dégg sax xale yi di ko wayantoo mais à part boobu dañoo jékki-jékki déggaatuñu Baka ñoo doon laaj jamono jooju noonu Baka fan la nekkoon ak lan la doon préparé. waaw euh, bëgg naa loolu nag bi ma koy génne Sénégal fii laa nekk mais dama ko génne Sénégal ici Dior laay jaay ko defee ma pare tombé suñu benn tourne bu ñu demoon États-Unis ma ànd ak gars yi dem États-Unis nekk ci tournée bu bu bu yaatu ak waa gox bi ci université yeeg. festival yeeg États-Unis gépp presque li ñu euh, ma bàyyi son bi nag mu génn sama ginnaaw ba pare di daw ma nekk samay tournée jàpp samay self son bi di daw rek son bi di daw di daw di daw di daw di daw ñëpp ñëpp naan ku woy lii ku woy lii ku woy lii après bi may jot li nga xam ni moom mooy xam nga écho yooyu bi ma koy jot nag après laa noo kon foog ma ñëw clip son bi doo ko eggali sama liggéey moo tax son bi boo xoolee clip bi dama ko def mu simple parce ndax paroles yi ci nekk am na solo ba pare euh, léegi image bi mooy clip bi na na simple bu ko defee ñu mën a déglu paroles yi ci laa ko clipé États-Unis après envoyé ko waa Sénégal ñu teg ko jur ko ci net bi son bi noonu la commencé ñu xam ki way daan ni oh, kon son bi bakka moo ko way daa di daa bëgg son bi loolu nag mu def loo xam ni Sénégal fii euh, ñëpp a nangu. artistes yeeg xam nga sama mbokk waykat yeeg. Euh, ñëpp ñoo nangu ma jot ku nekk nag xam nga tele yi di ko teg xam nga YouTube bi di daw mu nice trop léegi nag euh, après ma continuer sama tournée bi may def loolu moo indi son bi génn ba pare après gars yi gisaatuñu Baka Niang ma dem eggali sama tournée ba mu jeex nag ci laa ñëw nag def yenn émission yi ma bëggoon def dox promotion bu fekk promotion bi moom dox na boppam sax avant ma kaa dox dox na boppam waaw ci laa ñëw nag confirmé après doog a continuer sama carrière su loolu ma def. après bu ñu jugee ci bëgg naa loolu tamit ah, ñu ñëwaat ci ba mu nekk son bu neex son boo xam ne boo koy déglu paroles yi ngay déglu sax da xam ne son bi baaka ah, ah, teg na ko ci aksi quoi parce que ñu ngi gis tamit son bi nga wax ci lu am solo ñu day son bi nga ne. bët mën na lëre tànk yi it mën na lëre du fen foo feeñ. ñu la laaj loolu yaa ko dund wala ki nga jege moo ko dund ba ba mu inspiré wu loolu nga way waaw euh, loolu dund naa ko dund naa ko keneen tamit dund na ko comme doomu aadama yi nii dundee rek mbëggeel ñun yàlla suñu borom moo ñu moo ñaalee mbëggeel ci ñun la nekk yàlla dafa bind doomu aadama moo ñaale ko ak mbëggeel ni daal di bind góor ba pare bind jigéen daal di daal di bàyyi ñu daal di dawal doxal ci àdduna kon loolu sunu borom ñu koo jox ba pare te duñu jël sunu mbëggeel di ko dund parce que doomu aadama même bu li may faral di wax même bu sa jabar wala sa euh, soxna si nga xam ne tey yaa ngi koy labat ngeen nekk yi ñaar mais tey da ngay bëgg sa yaay da ngay bëgg sa papa da ngay bëgg sa liggéey bi sa micro yi nga ma dékk tey mbëggeel a tax da bëgg li ngay liggéey waaye boo ko bëggul woon heure boo nee ma maa ngi ñëw doo ñëw ba ma mer far ñu bàyyi ko mais defoo loolu da nga ànd ak sa caméraman ngeen ñëw dégg ma seen micro kon loolu cofeel la waaw man tamit li ma nekk di ci liggéey ak sama njaboot loolu lépp mbëggee la ak samay wayjur kon mbëggeel dafa bokk ci doomu aadama mooy lépp waaw mais nag mbëgg ku ci nekk mbëggeel bi nga koy bëgg bokkul fi nga ni ngay bëggee lii bokkul ni ngay bëggee lii ni ngay bëggee soxna bokkul ni ngay bëggee say wayjur mais boo dee seet ci fay mbëggeel la rek waaw moo tax man nag li ma dund man ñëpp mën nañ boo dee seet nit moom balaa ngaa takk soxna foog nga labat li ci ëpp te ku labat rek di nga dund loolu di nga toog di wéet des fois nga te ni si nga nekkal da lay nax fekk naxu la moo tax mu ni bët mën naa lëre gémmiñ mën naa lëre waaye xol du fen foo jaar mu feeñ loolu dëgg la waaw ku ko dund la mooy mbëggeel rek moom tam ba léegi nii moom lay dund nii est-ce que yow message nekk na moom ngay dund nii sax. <laughs> ok ah, ñëwaat ci bi Dieye Ndao parce que dafa garaaw parce que son boobu noonu xam nga man moom. Euh, dama nekk dama am dégg quoi benn dégg ba pare dafa garaaw ba dafa garaaw maa ngi nuyu taf mhm. maa ngi nuyu taf bu Baltimore Mr Taf DJ taaf maa ngi lay nuyu baax na la charaaw ma booy Taf borom Baltimore maa lay bëggee bu baax kooku moo joob son bi ni ma kii kenn doyu ma ci son bi yow yaa ma ci doy jox ma ko ma lëloog son bi génn jox ko li nga xam ni ba mu ko déggee dafa dafa dafa dafa dafa dafa ni ma non fekk ma sama studio ñu enregistré ma fekk ko fa ñu def voix yi def lépp xam nga daal koy génne ba pare nag ma xam ne dafa war a international ma jël li nga xam ne moom mooy moom mooy swahili boole ko ci rek mu daal di ubbeeku nag loolu moo indi jey na ko may nuyu mëf borom France mëf 55 ma ngi lay nuyu euh, dafa bokkoon ci clip bi jógee ba Paris ñëw États-Unis pour pour fekkee loolu te mi ngi ci shout out boy waaw ah, comme sama bu ma lay présenté sànq maa ngi naan danga moom rek laa fi gis mu jël single boole ci trois langues nga jël langue ah, olof bi ak anglais bi ak suwaayani bi ngay wax léegi ñooy laaj suwaay boobu noonu askan bi tey ñooy ñooy ñooy laaj suwaay yow fan nga ko jëlee daal ba andi. waaw waaw c'est que dama xam nga ninga la làkk la comme comme comme ni ko gars di waxee mais dafa am son yoo xam ni. dama mës a am ay gars yu ma dajal ñoom seen làkk nag neex ma ci ñoom ni ñuy waaye comme ni ngay déggee sound R&B américain muy way américain mi maanaam américain yi muy eh, euh, làkk neex la xam nga mm-hmm. anglais bi muy làkk neex la mm-hmm. maanaam américain yi muy làkk sax anglais yi muy làkk neex la mm-hmm. noonu la ma son boobu ñoom booyooyu seen son neexee ma daal di laajte langue bi ñu wax ma ko ma jàng ko ma ko jàngee ñu daal ma li ma ci li ma ma jàng li nga xam ni moom ma ci moo ma ci ñor waaw moo ma ci gën a neex ak li ma soxla ñu jàngal ma ko ba mu mokk ma daal koy jël def ko ci son bi def ko ci son bi waaw naan naka te ku ko wa di wa ko mais doo ñu ko woyal comme comme ñëw parce que am nañu naan est ce que baaka tànnu ko. <laughs> Ah, naan da ñëwaat foofu bi wa Nakata kuku wa mami wako, my baby, my punji wango. Oh no, my punji wango, wango wango na, my punji wango, eh.